Sering nee na ñëpp nañu wax jërëjëf Baye Niass sëriñ bi nee ñëpp nañu wax jërëjëf Cheikh Ahmad damka sëriñ bi nee ñëpp nañ bokk wax Ahmad damka fi bi beneen yoon. mu ngi ñaan yàlla yàlla ñu ko fi te mu ànd ak rabbi sëriñ bi nee na dafa fees lool li ko feesal lépp mbégte la rek ak bànneex sëriñ bi nee na mu ngi am kontante bu baax am kersa tamit bu baax lim ci programme muy lépp lu ngeen defal sëriñ bi defal ngeen ko ko moom moom mooy sëriñ bi moom mooy borom bis bi mooy borom ziyaara bi mooy borom gàmmu gi lépp lu fi yëngu tey sëriñ bi nee see Ahmad daan moo ko yëngal lépp lu fi dal ci dalal see Ahmad daan la fi dalee léegi rek jàpp na ci loxom bi ne ko woote bi na nit ñëpp wuy si mu tellu ne ko wuy suuñ ma mii lañ wuy si sëriñ bi nee na nit nag mënoo maye loo xamut teraanga ak daraja ikraam rek moo ko mën a maye walla boog ki ko am tetta ba ca nag nit am tiranga xam daraja te ñaar yooyu yëpp tabiwu ci kon du ko mën a maye sëriñ bi nee man mu soof mu xeebu mii bu ma xooxee ne ko jàppal gàmmu wala mu ne ko lépp ngi noonu bàyyi naa ko ci sa loxo bëgg maa yëkkati rek la waaye moom bu toogoon ci néegam bi ne taalibe yi soxla naa leen balaa wax bis ba su boobaa dëkk bi kenn du fa teg ne caam meloon ci bàyyi ñes nga xam ne bu ko bàyyi ñes fooxaan ko suba danaa la yónni kuusi dafay départ daw ba kuusi ne dëkk bi leen bàyyi ñes moo ma yónni waa kuusi yëpp génn mu ne leen bàyyi ñes nee bu subaa dana ma yónni ci yéen daal di départ dellu Medina foofu la taalib yëpp tollu ci yow kon boo woote woon ñu wuy bi dana gën a rafet dana gën a yaar waaye baax bëgg maye teraanga bëgg maye yëkkati bëgg maye daraja mbir yi la yàlla daraja ba nga sëriñ bi nee na mu ngi lay ndokkeel bu baax sëriñ bi nee na mu ngi wax mbokki taalibe yi yëpp ne leen nag nit ki bala yàlla maye ak ak may mu nekk may gu foor may goo xam ne yu bëri bëgg nañ ko te mënuñ koy am yëpp boo fayda la la yàlla jox na ko téye fukki loxo ak juróom mu ne nag doomu aadama nag bokk na ci nit ki la ko yàlla bindee mooy bu ko yàlla joxee may du xam may ki ko yàlla may fekk ñàkkul may bu ko ñàkkee lay door a xam may ki ko yàlla mayoon sëriñ bi nee na mu koy waa taalibe yëpp buñ nekk taalibe la taalibe lammiñ mooy lan Cheikh Ahmad Dame Cheikh Ahmad Dame kat buñ ne kin lépp lu ñu ci kër gi ngeen yow bokkoo te buñ ne Cheikh Ahmad Dame nga mbataxu daanu yuux sëriñ bi nee na lool taalibe lammiñ la loolu yëpp mën nañ ko wax rek kenn ku nekk mën na ko sëriñ bi nee na ku nekk xam na ne tollutul foofu fi jamono tollu tey mooy taxawu sëriñ bi ndax sëriñ bi ñun la fi nekkal bam bu fekkoon ne boppam la boo ñëwee fii. dellu fële étage bu kawe bi moo lay wan ne la fii mooy kër sëñ Ahmad waaye gisoo ko ci kër mukk lu fa nekk nekkul moom moo ko fa def hitteem mooy hittee jaami yàlla yi bëgg-bëggam mooy bëgg-bëggu jaami yàlla yi soxlaam mooy soxlaay jaami yàlla yi sëñ bi nee na nit nag ku la nekk lee ci naaj yow na nga ko nekkal ci kër gi bi nee na mu ngi dénk ñëpp nañ yeeyaat yi téye bu baax gàmmu gi war na balaa ñu naan des na semaine lépp lu ñu soxla ci gàmmu gi pare na du baas du nag yi war du ceeb lu mën a doon balaa muy des semaine war nay faree bor sëriñ bi nee na xam nga loolu nag lan moo ñu koy may tey ci tey jii bu sëriñ bi ne kuy dëkk dëkkal kuy ñibi ñibi yow nga waaj pour gàmmu déwén suñ mbokki mur yi foofu la ñu rawee buñ màggalee Tuuba ba ne màggal gi jeex na soobu xam ne mu jëm déwén balaa ñu koy ñu man ko baraw man waaye ñun nag tëdd di nelaw rek naan rek buñ ne sëriñ bi rek ñu daanu yuuxu loolu rek doy na ñu sëriñ bi nee na ñun nañ génn ci foofu nañ départ ren mu jëm déwén ñu gam waaj gàmmu gi ku ñu defal ñu ne alhamdulilah ku ñu defal. fekk ñun mën nañ ba pare waaye bu ñuy xaar nit ñi di leen bàyyi xel ñooy def échec rek la def sëriñ bi nee na nag war ngay am fulla fayda ba nga xam ni lépp loo dugg da nga ko goo xam ni lu ñëw ci yow ndool rek moom lay doon waaye fekk na yow tere nga sëriñ nee na mu ngi yaakaar ne wax ji te duggee ci nopp bi génnee ci nopp bële dafay yaakaar mu nekk wax joo xam na day nekk maqaama ci biir xol yi ndax wax ji nekkul waxi bakkat lu war ñu wax ko la bi nee na wax ji mu wax buñ ko defee moo war buñ ko deful moo war a bopp rek la ñuy dimbale nag sëriñ bi moom yàlla rek la xarmal xam nga lan mooy tegte loolu yéen ñii ci mbooloo mii waaxoo sa kër jëm sëriñ bi lan nga ko soxlaal xursoowaalal parce que xam nga ne moom xamu xalaat lan wuti jëmmi yàlla ji kon moom yàlla rek moom la xarmal yàlla yàlla rek mooy diine ji rek sëriñ bi nee na diine ak jamono ñoo ànd benn mëntu dem bàyyi moroomam mooy zahir mooy baatin sëriñ bi nee na kon bu ñu sëriñ bi nekk lee ci baatin nañ nekk ci zahir bi ndax ñaar yëpp bokku man innamal kaamilu man qad jamaa bayna maqaamayn te sëriñ bi kaamil la toogaayam bi ñun rek la bëgg a dimbali ñoo ko toogloo fii lu mu def ñoo ko ko defloo lu wax ñoo ko ko waxloo tey buñ gàmmu woon ba gàmmu gi jeex ana sëriñ bi mu ngi ca biir néew dana am lu mu laal waaye bëgg ñooy dimbale bëgg dimbale aal bëgg dimbale maqaama yi moo tax mu ñëw ci tant bi toog toogaayam bi nit ki nag bu la jaralee lépp yow it lenn lu lay jaral ci moom sëñ bi nee na loolu la doon wax ci taalibe yi nañ ci bàyyi xel bu baax a sëriñ bi Cheikh Baye Ëwulu nee na mu lay gërëm bu baax mu ngi lay ndokkeel bu baax a baax ci teraanga nga xam ne yow yaa ñu ko may mbokki taalibe yi xotti ay yére kaala daggaay mant joxe ay te lépp sa mbaax la rek bu leen buñ ko defee yow du la neex wallahi sëriñ bi nee nag kenn du def ndax ñun ñëpp sa bëgg-bëgg la ñuy sàkku sa gërmande la sàkku xam ngi xam ne kuñ defal tiranga ci jaami yàlla yi dafay neex ci sa xol bi ba mel ni yow lañ ko defal loolu moo tax ñu góorgóorlu ci lii sëriñ bi nee na mu leen di gërëm ci sa buntu di kontaan bu di bu baax a baax ci cadeau yi nga xam ne sunna la yonent joxe na cadeau ba joxe cadeau ci wax kon ku def lii rek yow yaa ngi ko royee ci yonent bi sallallahu alayhi bi nee na mu lay ndokkeel bu baax dafay wax ne nag moom moo ëpp sens ci kër gi ndax lu ko neex duggee fi bu ko neexee mu duggee fi kàddoog doom pot ko doom bu ko neexee mu duggee fi kàddoog sët pot ko sëll bu ko neexee mu nekk ak sufiyank pot ko taalibe la sëriñ bi nee na moom moo ci yaatu buntu def yooyu yëpp yow yaa ko ko ubbil yaa ko ko nangul ko neex du kii bi sëriñ bi nee na kontaan na lool na bu baax waaye nag mu ngi wax ne yàlla na nga wér sëriñ bi na ñaan dafa wax si Ahmad Dame que na moom xam na ne yow dara dara dangaa yoroon dëgg bi la sa waa ba dem si nga di feeñal melokaan wi moom dafa rëcc sëñ bi nee na sa waa ji dafa rëcc waaye yow doo rëcc parce que dafa yónnee ba dem yow nag ñi la téye ñoo nee na na nga wér rek jaami yàlla yëpp incha allahu dem fi yàgg te da nga gën a wér yaa rabbi sëriñ bi nee na yàlla ko yàlla defal ci barki Baye Niass allahumma salli ala sayyidina Muhammad jërëjëf Cheikh Baye kàddu yi rafet na xel ci gi daan